Mamadou Lamine Diop ñu ngi lay nuyu di la dalal ci mi FM maa ngi lay fay euh, ngay ingénieur des pêches euh, yor tamit kàddu muy communication <coughs> intersyndicale euh, liggéeykatu pêche ak aquaculture ñu waxtaanee njiitu réew mi ba mu demee Mauritanie ñu xamle ne ministre de la pêche daal dina fa xaatim ay accord yu jëm ci pêche comme yeneen accord tamit nuñ ko xaatimee ci visitu njiitu réew mi foofa tey ji ñu bëggoon a xam nan ngeen apprécier justement yooyu les accords diggante Mauritanie. nekk Sénégal jëm ci napp gi. jërëjëf euh, mademoiselle Diatta bon li may leeral foofu d'abord mooy que ne euh, may kon népp may continuer présentation bi rek di la wax ne euh, c'est vrai que ne je m'appelle Mamadou Lamine Diop je suis technicien DPS ingénieur précisément mhm. maa ngi dëkk maa ngi bal baal ma maa ngi dëkk Gandiol mhm. Gandiol mu ngi dëkk ci Ndar pour wax rek ne doomi moon la mhm. que ne accord yi nga xam ne moom la ñu demoon signé ji Ndar su weesee côté bi nga xam ne moom laay liggéeyee di ministère de la pêche daf ñoo intéressé ndax suñuy mag suñuy rakk suñuy jarbaat ñooy dem Mauritanie di nappi. Mhm. pour dellu si ci question bi nga posé nii ne nan la ñu gisee jàngatee accords yi nga euh, euh, xam ni moom lañ fa xaatimoon. Mhm. li ma ci wax mooy en tant que euh, ndaw mi nga xam ni moom mooy yor communica communication wu bànqaas boobu nga xam ni moom mooy représenté. Euh, ñi nga xam ne ñooy liggéeyee ci napp gi te di liggéey ci gouvernement bi mm-hmm. ñun ci ci ci ci ci xabaar yi lañ ko déggee rek xabaar yi lañ toog ba yàgg dégg ne euh, suñu ministre ànd naag président dem na Mauritanie signé ay accord kenn musuñu woo ci waxtaan woo xam ne mooy am foofa syndicat laay wax kenn musul woo musuñoo yëg ne ñu ngi koy préparé ni ko ñëpp yëgee noonu lañ ko yëgee kon souvent nan la doon demee ndax syndicat yi wala acteurs yi dañ leen doon associé euh, saa bu ñuy waaj a xaatim ay accord de pêche. waaw am na ministre yu ko doon def yoo xam ne dañ doon dañ doon dañ doon euh, woote waxtaan. ñu woote def évaluation waxtaan ci li nga xam ne moo baaxul woon ci accords yi ñu parce que accords yi ne am na ñu arrangé am na ñu arrangé wul mën na am ay rëkk-rëkk yoo xam mën nañ ko defar dañ ci doon woote waxtaan ku ci ne jox sa xalaat ñu def ko ci document bi ak amélioration pour wax rek ne Mauritanie moom ak mu ne dañuy def évaluation. Hmm. que moo tax at mu ne ngay gis changement ci accords yi ñuy indi li ñuy proposé. d'accord. waaw bu doon bu doon acteurs yi saa su nekk dañ leen di associé balaa ñuy xaatim ay accord kon lan mooy waral coow li accompagner justement accord yu bëri buñ ko xaatimee ba pare ci wàllum napp gi. waaw moom laa lay wax ni ma ne la gis nga boo gisee muy am coow. Hmm. ñaar ñaar ko waral. Hmm. benn bi mooy kenn woowu leen ci waxtaan woowa ñi nga xam ne moom lañ doon tëggee tëggee document boobu. Mhm. wala suñu leen woowee aussi lañ nga xam ne ñoom lañ xalaatoon kenn def ko ci document ba. Mhm. sinon coow du am bu fekkente ne woo nañ leen ci waxtaan. Mhm. te leen woowee ci waxtaan ñoom liñ doon tiit gars dimbali na leen ci ba wan leen ne li ngeen di tiit du am. def ko ci document bi ba nga xam ne ñoom seen seen i seen i seen i tiitaange gars yi taxaw nañ ci problème du am mais soit duñ leen woo. soit suñu leen wooyee sax dañ leen di woo nii rek pour woo leen mais li nga xam ne ñoom la ñu xalaat euh, kenn du ko ci def alors que pour man mënoo régler napp gi te boole woo waxtaanoo ceeg comme yéen dégg ngeen ci am ndax euh, ba ñu euh, signé accord yooyu le ak léegi donc ëpp na ñaar wala ñetti fan ministre bi yónnee na leen ay documents yi leen di won ne lii ak lii moo nekk ci accord yooyu le donc ndaxte yéen ñi concerné na leen yéen ñi nekk foofu ca Saint-Louis. waaw euh, bi mu bi ni ma la waxee ne ci euh, kii bi lañ ko euh, ci bataaxal ci mhm. xibaar lañ ko yëgee. Mhm. ci télé beeg rajo bi lañ ko déggee. amaatuñu beneen information boo xam ne xam nañu lan la fa sañ ji woon syndicat bi laay wax nag que ne amul de manière officielle lenn loo xam ne xam nañu ne lii la ñu waxtaanee jee woon Mauritanie lii ak lii lañ fa tënkee. d'accord xëy na su déggee su déggee waxtaan wi dinañu envoyé de manière officielle courrier envoyé ko syndicat bi ñu xam lañ ko jëlee pour que ñun ñu mën ci joxe suñu point de vue mais ba tey ñu wax ak yow sax joxe suñu xalaat day jafe ndax xamuñu lañ fa tënk. Euh, justement de manière générale souvent euh, accord de pêche yi nga xam ne dañ koy signé diggante Sénégal ak euh, Mauritanie lan moo ci xew yéen ñi ci nappkat yi yan avantage ngeen ciy am. waaw xam nga boo xoolee wax dëgg yàlla avantage yi nappkat yi nga xam moom la am nappkat ci euh, ci mhm. accord yi mooy Mauritanie seen géej moo ëpp géej moo ëpp jën suñu géej mhm. ba pare li koy waral aussi mooy que ne Sénégal dëkku dëkkub nappkat la mhm. pays de pêcheur la ko ba dëkkub nappkat la macha allah moolu géndar yi ay moolu xarañ lañ que ne géej gu géej gu géej gu xaw a aay tuuti sax du leen tee génn que ne fu ñu gisee jën xam nañ nañ am nañ xarañ te buñ ko jàppee donc ñu amee ay accord Mauritanie accord la yoo xam ne daf ñuy arrangé wax dëgg yàlla mais nag Euh, accords yi lu baax la mais nag li ñu war a jiital mooy fexe ba protéger suñu dëkk bi protéger suñu na suñu suñu suñu jën yi. Mm. c'est-à-dire que mu am euh, gestion bu baax ñu fexe ba aar suñu gàncax gi ba mool yi dootuñu am dootuñu am bëgg-bëgg di dem di napp ji Mauritanie di fa am yenn problème yi bien que nag Mauritanie dëkk bu am jën la mais ëpploon jën Sénégal boo demee ba ñun ñu koy wàlliyaani dafa utile na pour nappee c'est parce que ñoom dañuy gérer seen géej ñun gérer wuñ suñu bopp kon bu weesoo accord yi yan jafe-jafe la nappkat yi di dund euh, foofa ca Mauritanie te jógee euh, Saint-Louis xam nga xam nga xam nga xam nga boo xoolee jafe-jafe yëpp tax ci tuuru ci mooy tax ñuy wax ne nañ waxtaan ak mool yi waxtaan ak acteurs yi avant ñuy ñu accords yi parce que jafe-jafe yëpp ci tuuru accords yooyu léeg benn bi ma la ci jox mooy hmm. accords yi da ngay dem Mauritanie ci accords yi njëkk yi dañu doon permettre ñu jàpp jàpp jënu jënu kaw ku manee jënu jënu kaw ndox mooy pélagique yi pélagique yëpp mënoon leen leen débarquer ndar tey ci biir pélagique yi dafa am yu ñu yu ñu nangu ak yu ñu nanguwul mhm. ci biir pélagique yi da am espèce yoo xam dañuy tere ñu indi ko ndar léegi pêcheur bi su ci jàppee lu bare ci mhm. pélagique yi li rek ci ci ci nu ma koy waxee ci wolof sax jën yëpp ñoom groupe la ñuy def euh, groupe la ñuy def la ñuy la ñuy déplacé woo mhm. c'est-à-dire ci benn groupe bu jën mën nga ci gis yabooy gis ci jay gis ci gis ci euh, jëf ci beneen xeetu jën. Mm-hmm. cest beneen xeetu jën boobu cest à ñun la mën nga jàpp yabooy bi mën nga jàpp jay bi mais mënoo jàpp mënoo jàpp euh, mulet bi. Mm-hmm. ak lot bi. waaw lot bi cest à ñu tere la. Mm-hmm. ci biir ban bi nga ñun la ban bi mën nga jàpp ñii mënoo jàpp ñii léegi mool bi nag su ko yàlla nattoo ba mu jàpp ci lu bare. ragal ñu ragal ñu ñu nangu matériel am ragal ñu nangu nangu gaalam ragal ñu teg ko amande mooy tax mu wiiri dem zone internationale ñëw pour dugal ko ndar wiiri pour dugg zone internationale boobu lu ne xañ na ci. sa moteur mën na panne mar de musli fa ngay jaaree nax saay sa sa sa sa sa mën na jeex lu ne mën na la di fekk mhm. Mhm. léegi problème yi mag a mag yi ñuy am euh, lépp ci accords yi la foog naa accords yi lu ñuy waxtaan warul nekk loo xam ne affaire de taf yëngal la dañ ko war a waxtaanee waxtaan ci ba tënku ci benn document doog cee waxtaan ak Mauritaniens yi mais du ñu jekku-jekki laqatu dem ñu yeewu naan ñu dem nañu signé nañu te xamoon ban continue lan lañ ca def alors que ñun mool yi suñu suñu suñu ëllëg suñu ëllëgi doom ci la dépendre foog naa ne suñ ciy waxtaan war nañ ci waxtaan ak mool yi war nañ ci waxtaan ak syndicat bi wax nañ ci waxtaan ak ñëpp balaa ñuy dem suñu demee ñu xam ñoom li ñu indi. tey nan nga jàngatee euh, politique euh, nappu Sénégal. xam nga ni ma koy ni ma ko ni ma ko daan waxee rek laa koy waxee. Mm. dafa jot ñu jël ñu jël nappkat ñu jël napp gi ah. Mm-hmm. dénk ko ku xam napp su ma nee dénk ko ku xam napp xam nga da ngay dégg ñu naan la ministre bi fi nekk pour na pas citer le nom la. Mm-hmm. xam nga nekk lébu juddoo ci juddoo ci taxul xam napp su ma nee xam napp mooy xam technicien des pêches soit ngay nappi wala nga jàng napp tey problème yi ñu am yëpp looloo ñu ko teg tey boo xoolee li nga xam ne moom mooy moom mooy euh, code de la pêche bi ñu génnee muy code de la pêche bu bees mhm. musiba bi nga xam ne moo ci gën a rëy mooy dañuy dañuy permettre ay navire ay gaal mooy bateau li ñuy woowee saxaar yi mhm. ñu dem napp ci ci zone yoo xam ne jën yi dañ fay dañ fay juree exemple bi ma la ci jox boo demee Ndar mhm. dañ naan gaal yi mën nañu napp au delà de six juróom benn nautique mooy à peu Euh, en moins de douze kilomètres la boo demee douze kilomètres au large de Saint-Louis la profondeur est aux de quarante neuf cinquante cinquante et un boo demee boo demee euh, Casamance. Mhm. douze kilomètres di euh, moins de douze kilomètres dans certains endroits la profondeur est au inférieure à quatre à la boo xam ne jën dañ koy juree est-ce que mën na nañu mën ngaa pour mën nga xamu nu ñu koy waxee ci wolof gérer mooy aar loo xam ne saa yu juróo ñu rey doom yi lan lañ nar a bàyyee suñu doom ak suñuy sët fii ak quinze ans vingt ans. Mm-hmm. Mm-hmm. xamuñu ko parce que lii su dakkul kenn jën dootu fi des kene suñu doom dañuy dégg lañ ci am parce que gestion bi dara dara baaxu ci di kenn ñi mu ko wax. de manière générale lan moo lan mooy jafe-jafe gu gën a tar euh, ci napp gi Sénégal. xam nga jafe-jafe gi ça dépend ku ci ne fa nga dem boo demoon daal xam nga lu ñu lay wax. bël bi lañ lay wax. di ma dellusiwaat ci ci problème mu bël bi. li ngay wax ne rek ne kenn waxtaanee wuñu leen ñu dañoo jékki-jékki. ñun nga xam ñooy jaar ci pël bi di dem géej ndar ndar yi lay wax quoi. Mm-hmm. dañoo jékki-jékki ñun ñu chinois bi gagné na marché bi jékki-jékki ñun ñu chinois bi nee na mënatul liggéey marché bi bàyyi na marché bi. ci noonu lañ ñu ba yàgg ñuy wax naan waaw euh, dalal leen xel dina ci am euh, barab yoo xam ni daañ koo gas ba mat 5 ñun ñu fay jaar chaque jour. xam ni foofa boo jëlee mooy profondeur yi ëpp na 5 mètres suñu naan dalal leen seen xel yi dina am yoo xam ne profondeur dina ëpp 5 mètres waxi mënuñu gérer napp gi te waxtaan nuñu teeg ñiy napp mënuñoo gérer affaire euh, napp gi te waxtaan nuñu teeg mool yi loolu mënul nekk. et justement projet boobu fu mu toll euh, comme. Euh, fi mu toll nii yeewu nañ mhm. yeewu nañ ñu ne ñu ñu ne ñu ah, chinois bi nee na bàyyi na léegi dañ koy jox affaire Eiffage mais xam nga marché mar code code des code des marchés publics dafa am procédure. Mhm. que ne gagné na bi. perte nee na mënatu ko liggéey bàyyi na dañoo war a joxewaat marché bi. normalement suñ jëlee code bi dañ ko parce que au delà de euh, je sais ce que je dis parce que technicien supérieur la passation de marché public. Hmm. marché bi dañ ko war a lancer waat entreprise ñoom ñoo ñëwaat yaa yu trop. mais joxewuñu woon tur ba ne dañuy tàmbaliwaat liggéey bi wala. Eiffage ci diggante bi délai bi nga xam ne biñ ne chinois bi bàyyi na. Hmm. dama lay wax lu leer naaj diggante bi ñu ne chinois bi bàyyi na. Hmm. ba ne Eiffage gagné na ko diggante boobu gàtt bi mu gàtt mënuñ ci lancer marché ba keneen gagné ko c'est pas possible mënuñu respecter co collectivité euh, collectivité des marchés publics. li ma la bëgg a wax foofu mooy biñ ñuy wax ne keneen gagné na marché bi waxuñu dëgg wala respecté wuñ. kon gré à gré daal nga gën a njott ne moo fa am. am na moom am na luy ñuul ci suuf de toute façon. d'accord. pour na bañ a wax lu ma xamul am na luy ñuul ci suuf. parce que code des marchés publics dafa am nu muy doxee y a des délais à respecter tout diggante bi ñu nee chinois bi nee na bàyyi na ak jox nañ ko diw délai bi mënuñ ko fi respecter mënul nekk. Mhm. y a des procédures à suivre. d' accord ñu tëjee donc soit dañu ko soit dañu ko wax rek pour wax lu ñu neex soit am na leneen luy ñuul si biir. <laughs> d'accord ñu tëjaat euh, parenthèse boobule euh, dellu siwaat euh, ci napp gi ñu doon waxtaane muy accord tout à sànq yaa ngi koy wax muy pêche illégale tey ji ñu ne Sénégal at gu nekk dina ñàkk lu tollu xanaa ci cent cinquante milliards at gu nekk ci lii di napp gi tey ñu bëri joxoñ baaraam tuuma pêche illégale ndax li ni mel jàpp nga ne moo moo ne fii waa mais xam nga eh, pêche illégale bi aussi xëy na xëy na sax ah, dag ñuy perte loolu bare mais mais mais man li nga xam ni moom laa gën a ragal mooy mauvaise gestion bi. Ah. tant ñu ngi ñu ngi ñu ngi bàyyi que muy moolu gaalu loose bi que moolu moolu gaalu industriel bi muy napp ci barab boo xam ne jën yi dañ fay juree. munoo di aar aar aar aar loo xam ne fi lu judd nga rey doom yi loolu munul nekk. Mhm. que ne pêche illégale bi pêche illicite bi c'est vrai que ne problème la au niveau national mais aussi loolu mënuñu ko régler mukk. te dellu si waat ci fil de gestion bi ñu bëgg. suñu demee ba ñun ñuy dem Mauritanie di fa wàlli waali war nañ seetaat suñu bopp. koo xam ne yéen a tolloo woon ay jën wala neexoo woon ngeen nga dem ba moom mu lay signal ay accord hmm. pour nga ñëw napp ko war nga seetaat sa bopp ça veut dire que yow li nga yoroon ni nga ko yoree baaxul. te lii su dakkul waxuma la li nga yoroon ni nga yoroon li ñuy li ñuy karkaraas néew sax suñu doom duñ nga gis coof problème pour nga gis leçon n'a pas été bien gérée. daal bu ma la déggee ngay wax bu mayul dootuñu amati benn jën. ah yow xool léegi yow laajal mag mi laajal euh, koo xam ne moo la mag su demoon marché yan jën la fa daan jënd ak ñaata la ko daan jëndee laajal ku dem marché tey yan jën la fay fekk loolu rek doy na misaal pour wane ne wax dëgg yàlla. li ñu yor ni ko yoree baaxul. d'accord ñu waxoon fii benn conseil présidentiel ci napp gi euh, annoncé woon ko ci weeru mars ñu doon wax ne weeru mai dinañ ko amal ba tey yan xibaar ngeen am euh, ci boobule conseil. waaw foofu li ma ci wax nag mooy que ne euh, ministre bi associé woon nañu ci réflexion yi woon nañu ñu waxtaan syndicat bi nag laay wax ko hmm. que ne woon nañu ñu waxtaan ci préparation bi tout ça wax dëgg yàlla mais ñu ngi xaar ñu ngi xaar parce Euh, comme ni nga ko waxee mais la waxoon ñu ngi au mois de juillet mhm. lan moo ko téye kañ la mënuñ la ci wax dara ñu ngi xaar. et lu ngeen jàpp ne euh, ndaje gu mel noonu mën na koo andi euh, ay solution ci biir li jafe-jafe yi napp gi di dund. waaw su fekkente ne biñ comme niñ ko defee nii nga xam ne woo nañu acteurs yi woo nañu techniciens yi waxtaan ceeg ñoom. Mm. jël nañu en compte seen i pré préoccupation yàlla mën na def sutura que ni wax dëgg yàlla ñu ñu saafara problème yi bare bare ci napp bi waaye man ma la jaata wolof daf ne togg su naree neex su baxee xeeñ hmm. kañ la ñuy waxoon mois de mai ñu ngi au mois de juillet est-ce que loolu dal na xel ci ku nar a defar kon da ngeen bëgg ne yéen daal seen yéen a ngi dem mais ah, du àndu leen ceeg xel mu dal noo xam nga xel mu dal mi ku la nee la ku la nee la lii dinaa ko def bi sàngam bis booba paase ah. Hmm. lam la waxoon defu ko waxu la lu tax defoo ko sa xel boo dee nit sa xel dina tee. leneen li mooy est-ce que li nga xam ni moom la ñu waxtaanee dinañ ko jël en compte. xam nga ma est-ce que hmm. non les préoccupations des acteurs les préoccupations des des techniciens sont pris en en compte ci loolu loolu lu am njëriñ la loolu nag lañ defee am yaakaar. ndax du du euh, dugguleet que ne euh, autorité bi woote waxtaan pour woote waxtaan fekk lim nar a def de jël na ko bu yàgg. dugg leen. Euh, Mamadou Lamine Diop euh, ñu lay jaajëfal bu baax a baax.